d'instance bu Ziguinchor agent judiciaire de l'État indi ko fii tey juge bi dagg na décision boobu kese na décision boobu delloo na à zéro anéantir chance yi nga xam ne moom la ñu amoon nee na léegi dañuy delluwaat cour d'appel loolu nag pour ku comprendre ngeen comprendre ko noonu mooy décision bi juge Sabassy Faye jëloon teg ko ci droit tey cour suprême décision boobu dañu ko kase bi ñu koy kase nag ñeenti mbir lañ leen indil ñu ne ñaari ñoo baax ñaar yee ñoo dem ne daal di jël mbir mi comme ku yor sa sa sa sa dagg ko ci digg bi xaar la poire en deux. nañu léegi da ngeen di delluwaat cour d'appel parce que sun Sonko Dakar la dëkk te kër góor gi la dëkk. Euh, fi ñu toll nii nekk ñun man de sama responsabilité def naa ko ba mu mat sëkk bu ma waree taxaw taxaw naa bu ma waree wax wax naa bu ma waree dem dem naa bu ma waree dox dox naa. ku nekk nag da ngay xool yow est-ce que sa responsabilité yow li la war def nga ko wala li la war ndax defoo ko loolu kese moom moo fi nekk. lu ci des mooy la vie ne s'arrête pas à ça parce que Ousmane Sonko wax na leen ko démb jox na leen message ne leen du fond de ma cellule je vais continuer à résister parce que moom nag lii bett ko parce que moom xam na ni lalu hôpital ba mu tëdd du benn délit moo ko fa tëral mais volonté président Macky moom moo ko fa tëral maintenant nag à de savoir comment nous allons nous mobiliser de façon pacifique mais de façon globale askanu Sénégal bi yëpp taxaw taxaw soo taxaw ànd bañ lii nga xamante ne moom la ñu bëgg a teg suñu kaw mooy empêcher ñu ñu choisir wala nangu rek wala wala wala nangu wala ne bon on accepte euh, on jooy euh, xataraayu yuuxu am lu ñu naqari après ñu dem toog voilà donc loolu daal mooy li nga xam ni moom moo am bu mu nekk on ne peut pas être là man je suis désolé je veux vraiment faire ce message pour couper je j'interdis vraiment j'interdis à tout patriote d'avoir un sentiment de déception je me l'interdis et je vous l'interdis parce que pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir un sentiment de déception pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir un sentiment de de de désarroi pourquoi waruñu ne yàcc waruñu am masse parce que ñun xamoon nañu ni suñu waay defu dara na ñu ni sunu waay dañ ko bëgg a écarter xamoon nañu dañ ko bëgg a liquider politiquement kon dara waru leen bett kon da ngeen war a solaat leen mbubbu gaynde yi les plaintes la le jooy ak les tristesses les gens n'ont pas besoin de ça gardez vos tristesses ravalez cette tristesse Cette tristesse, faites-en de la colère, faites-en de la force, la force de vous mobiliser de façon pacifique et d'être de, de, de, debout. Vous avez le droit d'être debout de façon pacifique. Vous êtes un peuple libre. Les gens libres doivent circuler. Les gens libres doivent assister. Les gens libres doivent être debout. Soyez debout. Ravalez votre tristesse. Ravalez votre amertume. Et redressez-vous. Redressons-nous. Parce que c'est le moment. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, continuons le combat. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit d'être surpris. dara jeexu fi képp ku nekk patriote message bi sa message la amuloo sañ-sañu tëdd naa tey am naa lu ma métti sama yaakaar tas na déedéet parce que waroon nga xam ni volonté bi tëj Ousmane Sonko volonté bi nga xamante ne moom moo tax juge àtte ñu jël ko di ko àttewaat volonté boobu xam nga ni c'était pas pour jox Ousmane Sonko ses fiches kon gëmu leen loolu kon yéen ba léegi gëmagu leen loolu bu dee am na ñu des gëmaguñ ko kon ñu joxante rendez-vous ba ci kanam fekk ngeen gëm ko mu dugg ci seen biir bopp merci beaucoup wasalaam.